moom mi ñu jàngal li nekk ci asamaan ci suuf jàngal ñu ba jàngal ñu nan la jardin yàlla di mel jàngal ñu ba wàññu autoroute bi jëm ci buntu bureau yàlla xamoo leen sama góor gi si mës naa ko wax tey laa koy waxaat yàlla bu la fayee ma xeex moom ndax yàlla ak mbaaxam li muy ngand ngand doyuma ci yow li nga liggéey ci ñun si yow yàlla du la fay man maa lay fay bu ma ko narul yàlla naa yàqu àdduna àllaaxir ak leneen du ci mën a ñëw waaw kay asalaamaaleykum macha allah ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp aax te di leen baal aax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal macha allah sant yàlla euh, tey dafa am ay réaction yu ñu bëggoon def ci réew mi ci situation yi nga xam ne ci la toll euh, bëggoon na aussi def benn réaction ci am na benn jeune euh, boo xam ne ci famille yi ñuy wax ay sëriñ ci réew mi ci famille yooyu la bokk di def euh, maam ay xeetu discours yu muy faral di def yoo xam ne yàlla dogal na man léegi mu mat ay mois ci ginnaaw am na nit ñu mu fi yónnee woon euh, ay lien yoo xam ne ay mel ni ci jamonoy koor ga woon sax am na yu ma ci jotoon a déglu euh, yàlla dogal fan yu aussi ñu yónnee ma ay extrait vidéo mooy extrait vidéo yi nga xam ne moom laa partagé nii mu nekk loo xam ne nag li muy firndeel rek mooy li ñuy wax jamono bu ne maanaam Sénégal ñoom seen lépp dafa sélectif seen indignation dafa sélectif seeni réaction maanaam seen indignation dafa sélective seen maanaam seen réaction dafa sélective seen lépp noonu la mel maanaam ñoom dafa mel ni dafa am ñoo xam ne ñoo am droit wu wax lu leen neex moo xam ci yàlla wala moo xam ci yonent bi wala moo xam ci lu mu mën a doona parce que da ngeen gis sax même ba ci domaine politique da ngeen xool ba ci domaine politique bi nit day toog ci télé wax wax ju rëy ñépp gis ko keneen ñëw wax wax joo xam ne xaajut bay yegg fi wax jee toll kooku moom ñu jël ko tëj ngeen gis nit koo xam ne day toog wax wax ju rëy ci yàlla ñëpp di dégg wax wax lu ko neex moo xam ci yonent bi wala ci islam ci boppam ñépp na tekk kenn du ci wax nga gis ne ñenn ñi suñu waxee ñu commencé di indigné wu di commencé maanaam di réagir alors que en réalité li doon yoon su fekkoon ne seen réaction yi su dee ci wàllu politique su doon na dëgg ak justice rek moo leen ñor lépp loo xam ne lu jalgati yoon la dafa war ñu réagir ci su fekkoon ne ci wàllu diine yàlla rek moo leen ñor lépp loo xam ne dafa ñëw di wax ci yàlla lu jaaduwut walla di wax ci islaam lu jaaduwut su boobaa dañuy taxaw wax ca loola mais gis nañ ne indignation yi day sélective réaction yi tamit day sélective loolu soo demee ci wàllu politique loolu nga fay fekk soo demee tamit ci wàllu diine tamit la même chose nga fay fekk ki nga xam ne moom mooy wax lii moom moom li muy def man personnellement wax dëgg yàlla du lu ma jaaxal ndax xam naa ne li muy def loolu sophisme la tudd boo ko teg sophisme nag bi wax tasawuf mais sophisme ay wax la yoo xam ne ki koy wax maanaam soo déggee li muy wax danga naan kii li muy wax dëgg la te fekk na fond bi moom teguwut ci dara ndax lum ci mën a doon soo ko ci interpellé woon danaan la dégg-dégg la laaj lum ci mën a doon rek soo ko interpellé woon danaan la dégg-dégg laaj dinaa ci joxe exemple dafa am benn jamono léegi mu yàgg loolu war na mat war na war na fukki at ma mës a dégg benn nit toog ak ay ay nitam xam naa ay taalibeem wax ne moom dox na ci siraat ginnaaw gi kooku ci boppam ki nga xam ne moom ci nitu kooku la bokk ginnaaw gi ñu ciy wax ma ne ko gis nga kii li muy wax nii ma ne ko gis nga lii nii du daara mu ne ma ci lan ma ne ko li wax na dox na ci siraat ah loolu kay dafa yéeme man ne ko yéemewul de ma ne ko loolu yéemewul lii système mu wax la mooy comme li may wax léegi ci sophisme loolu la rek soo waxee ne dox na ci siraat yow ngay jàpp na ay siraat ma yi ñuy wax naan bis ci siraat yooyu ñuy wax noonu nit ñi di ko wax ci téere yi nit ñi di jàpp loolu te fekk ne dox naa ci siraat li muy firi mooy dox naa ciw yoon yoon kese comme comme génn na këram dox na ciw yoon loolu rek lay firi mais su utiliser baatu siraat nit ñi ñoom ñoo koy jël yóbbu ko fo ñoo ko jël yóbbu ko feneen fekk ne moom jubluwu ca loola lum ca jublu rek mooy dox naa ci yoon mais loolu sophisme la tudd te ñi koy def ñëpp nag ay mystificateur la ñi koy def ñëpp ay mystificateur lañ loolu yàgg na fii du sax lu bees ci réew mi loolu sax du sax lu bees ci réew mi fii am na clan yoo xam ne presque ci loolu lañ nekk depuis toujours seeni nit presque loolu lañ ñenté mystification luñ wax soko so soo ci so len ko laajoo nit dañ ñaan la loolu dégg-dégg la laaj moy li ñuy wax téggul fenn légui nak li ñuy def comme li fi nekk rek comme niñ ko yagg waxé ñun yaakaar amna wax yo xamné bañ ko dalé wax yagg na du légui ci li nga xamné mo moo nekk ci réew mi fi maanaam nit ñi soo xoolee surtout rawatina ñu ñuy tuddee ay li ñuy tuddee kilifa diine loolu amul ci réew mi nag amul ci islam ah kilifa diine amul ci islam islam amul kilifa islam benn kilifa la am muy yàlla amul beneen kilifa te ñii ñoom woote woowuñ sax islam ñoom dañoo am seeni yëfu bopp la woote woo di seeni yëfu bopp muy xaaj yañu bokk loolu mooy li leen ñor ndax du yàlla moo leen ñor su leen yàlla ñoroon suñ waxee ci yàlla loo xam ne waruñ koo wax danañ ci réagir su fekkoon ne yàlla moo leen ñor suñ waxee ci yàlla lu jaaduwut danañ ci réagir su doon dañoo wax ne yonent bi moo leen ñor ndax yàlla moo leen ñor ak yonent bi moo leen ñor loolu moom suñ koy wax day fekk ne ay nit ñu nekk feneen comme lañuy wax ca Charlie Hebdo wala la ñuy wax fan yi ca Inde wala lañuy wax ci yeneen i barab ak yeneen i barab di wax naan ñoom ñooñu lañuy ñuy def waruñ koo def waaye ci réew mii benn kuréel ñu bokk ci benn kuréel suñu waxee ci diine wala ñu wax ci yàlla loo xam ne waruñ koo wax wala ñu wax ci yonent bi loo xam ne waruñ koo wax day mel ni genre omerta li gars yi di wax ci mafia bi la loi du silence de mel ni ñoom nyop, dañ koy yego ne nañ nopi ndax lan kenn ku ci ne bañ nga sa morom benen kurel manam dila la ne waw yow yow biñ waxe nangam da nga profito wax ci ñun nangam ak nangam ak nangam kon ñu nit ngi xaar ba leneen xewaat su ko defee ñu ñu xam na def nga xam ne kon kenn ku ci ne ay intérêt lay sàmm ñiy wax yàlla taxul ñuy wax suñu wax yonent bi taxul ñuy wax loolu moom xam naa comme ni ko gars yi di waxee rek waaye yonent bi taxul ñuy wax parce que même fan yi yàggul dara yéen a ngi gis loolu xewoon Inde loolu seen premier ministre bi waxoon gis naa fi sax ay xeetu ay déclaration ay communiqué nit ñi di ci wax te pourtant loolu premier ministre boobu wax am na ci téere yoo xam ne ñun ñoo ngi ko yor ni ma sax ñun nit ñaa ngi ko yor seeni biiri kër yoo xam ne wax yooyu ñooñu di wax foofu lañ ko jële mooy li may wax ci indignation sélective bi yow nit day taxaw fële wax dara sax ci yonent bi te fekk ne kooku la muy wax ci yonent bi te fekk ne kooku la muy wax ci yonent bi téere yi nga xam ne ñoo jàngale loola yeneen ko gàddu gëm téere yooyu gëm na lu ñu wax dëgg na te pourtant la kooku di wax moom ci téere boobu waaye su ko nit waxee ngeen mer te kooku la muy wax ci seenu téere la jóge loolu di leen na waaye su fekkee ci biir réew mi fii rek ku bokk ci benn kuréel su waxee ci dara pour nga gis keneen ku bokk ci beneen kuréel di ci wax lu raara raara raar la ñu néew ci ñoom ñoo ko sañ a def te ñi ko sañ a def it dangeen leen di seetaan sax daanaka nit ñi lijjanti wuñ leen daanaka nit ñi lijjantewuñ leen suñu amee jafe-jafe it ba daanaka ñu ci ëpp lijjantewuñ leen kon ngeen gis ne Sénégal maanaam jafe-jafe boobu moo fi nekk ndax kii xam ne moom mooy wax ni ab jeune la di wax wax yi te lim ci jublu yëpp affaire mystification la parce que en réalité loolu la juddu fekk ko fii loolu lay def ngir lan ngir tënk ay nit. te damay wax na loolu jamono da koo weesu jamono weesu na loolu ndax nit ñi nekkatuñ fa ñu newoon depuis des années ñoo ngi koy wax ne ci jamonoy dëgg lañu toll te yiñ doon nëbb yëpp ci diine lépp day feeñ mbir yëpp dañuy dem ba xam leen lu ci ne la ca aju foofu la jamono bi toll depuis 2017 ñoo ngi koy wax ne xeet yi ñuy wax ay mbiru tariixa ay affaire yu gëmloo nit ñi ay mbir yu taxawul fenn ci seen jamono yu mujj ci lañ toll depuis 2017 ñoo ngi koy wax bañ koy wax bañ koy wax surtout sax avant 2017 2016 am na ay vidéo yu ñu fi defoon te avant loolu 2015 ñoo ngi ko doon wax boobu ak léegi képp ko am sa xel di jàngat yow yaa ngi gisal sa bopp ne mentalité yi fi ñu nekkoon démb. nekkatuñ fa té da ngay gis né li at yi di gëna dem depuis bo ba légui da ngay ni gis né li at yi di gëna dem nit ñi seeni xel day gëna ubbé ko te fofu la jamono bi tollu té lolu kanam la jëm nekkul luy déllu ginnaaw kon ki xeyna dafa xamul fi jamono bi tollu mo waral sax mom mi ñëw di wax li mais même ñiko ko jiitu sax da naka ñom sax amuñ sens amna ci lo xamne ci bu njëkk ba suñu baye fofu la doon doxé waaye lu commencé ay 2014 jëm kaw moom jarut sonn ku fi gëmoon yenn yi yaakaaroon di dox ci yenn yi jàppoon na yenn yi nit ñi dinañ ko gëm diir bu gàtt lay doon nit ñëpp dañuy yeewu ci loolu ci jamonoy dëgg lañu tool loolu pexe amu ci dogalub yàlla la ndax yàgg nañ koo wax li ñuy tuddee ay mbiru këru diine yi nga xam ne lu ci bari luy seen liggéey mooy fënaxal xelu nit ñi comme li ñuy wax abrutir nit ñi ci di leen gëmloo ay mbir yu taxawul fenn te lépp ngir seeni intérêt personnel yàlla taxul yonent bi taxul seeni intérêt yi bopp képp moo leen ñor mooy waral ba sax suñu waxee fii ci réew mi ci yàlla duñu yëngu suñu waxee fii ci réew mi ci yonent bi duñu yëngu waaye su ñuy laal seeni intérêt ñuy yëngu te yaakaar naa ne waa réew mi léegi ñoo ngi ciy bëgg a yeewu ndax man mii sama bopp jamono bu ne maa ngi bàyyi xel nit ñi seen xeetu waxin seen xeetu bindin mais da ngay gis ni nit ñi bëri na loo xam ne ñoo ngi koy commencé démystifier nga xam ne mystificateurs yi bu yàgg ba léegi liñ doon dugal ci xelu nit ñi di leen ko gëmloo lum ci mën a doon ci yooyu nit ñi ñu ngi tàmbali di ko démystifier bu baax a baax a baax a baax a baax te loolu it nag sant yàlla la ndax gëm-gëm yi nga xam ne moom lañuy ñuy gëmloo nit ñi te teguwul fenn muy fën xel xelu nit ñi loolu bokk na ci liy tardeel réew mi parce que nit ñi souvent dañuy wax ci côté politique ma ne leen amul kenn ku mën a xeex ci wàllu politik li nga bëgg ci réew mi nga mën koo am li feek ñii ñuy tuddee ay kilifa diine këru diine yii waxu leen ci ba nit ñi yeewu ci parce que loolu moo gën a mën a tënk nit ñi nit ñi suñu yeewoo ci diine leneen lu mën a doon lu ne mën nañ caa yeewu parce que nit ñi ñoo gàllankoor nit ñi nit ki su bëggee jëriñu wala su ngeen bëggee nit ñi jëriñu da ngeen fexe ñu am benn digaale digaale boobu kan la war a doon yàlla képp la dafa jot sëkk ñu détaché nit ñi ci nit ñi rattaché leen ci yàlla loolu dafa jot sëkk te suñ waxee nit ñi waxuñ waa réew mi nii rek dañu fi nekkoon ñu naan ay kii suñuy kilifa yeeg nàngam nàngam de ay nit moo xam ca naar yaak yépp a ca bokk yem su dee diine kenn amu ca dara diine yàlla képp a ko moom yonent bi sax moomul diine ji diine yàllaa ko moom ñi ci aju benn kilifa lañ am yàlla la amuñ ñaari kilifa ñaari kilifa diine dëgg-dëgg di islaam ñi ci nekk benn kilifa lañ am muy yàlla yonent bi ndawul yàlla la woon yàlla joxoon ko téeréem mu ko doon jottali daan ci sukkandiku di wax daan ci sukkandiku di jëf bàyyi na fi waaye la ko yàlla joxoon mu ngi fi ku ci bëgg noppalu ku ci bëgg jëriñu diggante moom ak boromam na dem ci téeréb yàlla yeneen yi ci topp yëpp ay imaam diw nee naag diw nee naag nee nañ diw nee naag jëlee nañ ci diw ak ay suñ mag mu baax mi nee naag nangam nangam yooyu du dara ci diine du dara dara amul benn valeur ci diina parce que yàlla du la ko laaj ëllëg nit nag lu la yàlla dul laaj ba pare nga ciy nekk di sonn dafa mel ni ngay def examen ñu ne la examen bi nangam gii moo ciy génn ci nangam gii ñu ne la ci livre bii sa examen ci livre bii lay sukkandiku ay nit naan la non mais garaawul mu nga dem liiri beneen livre bee wala beneen livre bee beneen livre bee sa temps lañ lay perteloo wax nañ ne ne livre bii nii sa examen ci livre bii lay doon beneen livre boo jàng perte de temps la ci yow livre bañ la jàngaloo demal nga jàng te loolu yàlla moo ko wax benn téere la ñuy laaj ëllëg benn téere du ñaar ku dem ci surat 43 nga lire verset 43 44 yaa ko fay fekk benn téere mii téere bi yàlla la leen yàlla di laaj ëllëg kon yeneen yi ci topp yëpp ñu leen gëm gëmloo di leen woo ci ay événement yu bare bare bari fii ci réew mi loolu day tardé réew mi ndax man damay wax ne waa réew mi dafa mel ay jafe yéen yéen a ngi bëgg a ay mbir ay affaire u këru diineeg nangam nangam xeet yooyu di kaas ci réew mi jafe-jafe yi fi am te ñi nga xam ne ñoom ngeen tuddee ay kilifa. ñu ngi jël xaalisu réew mi di ko sotti ci ñoom te ci lan lañ koy def lan ci lan lañ koy def yéen ñi nga xam ne yéenay jàmbat ñoom ñuy leen yéen su ngeen di jàmbat yéen ñoom ñuy ñëw daan leen waaw nañ bàyyi xel yàlla nangam est-ce que ñoom ñu ngi bàyyi xel yàlla ñoom suñ doon bàyyi xel yàlla danañ doyloo ñuy yëkkati xaalisu réew mi di leen ko xëpp. ña nga xam ne ñoom ñoo leen yilif te bàyyee wuñ leen ak la am lu dul ne fu ñu toll ñu ngi wut lu ñu leen woo ñu ngir ñu ñëw di jël seen alal di ko fa def di wut a dox ci seeni xel di wax ay waxu discours yoo xam ne mooy discours ñëw leen indi seen alal ñooñu nag nekk ci coono su fekkoon ne dañ leen jox ay alal nguur gi da leen koy jox mii xaalisu réew mi te ñoom waa réew mi ñor leen nañ leen wax ne leen yéen li ngeen di jël di ñu ko jox def leen ko ci réew mi def leen ko ci hôpitaux yi def leen ko ci école yi def leen ko ci nangami def leen ko ci nangami ñun suñuy nit luñ ñuy jox mu doy ñu donte seeni nit ñooñu lañ leen téye amul benn njëriñ du diine du dara ay nax yu fi yàgg la rek kon ñi nga xam ne dañoo jàpp ne kaas bi ci politique la war a yem li gën a garaaw ñun wax nañ ko depuis 2016 ci télé ba sax man li ma wax ñu ñuy wax politiciens yi ñoo gën ñu ñuy tuddee ay kilifa sëriñ fii ci réew mi duñ sax benn ndax ñii même suñ lay nax ci wàllu àdduna lañ lay nax politique ñii ne dañ lay wax ne ñoom ñoom ñoo lay war a nàngam ci yàlla nàngam te ñoom seen bopp misaal mi rek mu ngi nii nguur gii li muy def sax sañuñ caa wax ndax suñ ca waxee seeni privilège tey dog bugguñ seeni privilège dog ba tax na nanguwuñoo wax dëgg waa léegi nag ñi nga xam ne seeni privilège lañuy bañ mu dog ba tax na nanguwuñoo wax dëgg waa ñooñu yéen xalaat ngeen ne suñ demee ci yàlla danañ fa taxaw di am lu ñuy expliquer ñoo xam ne alalu àdduna képp moo tax ñemewuñoo wax dëgg alalu àdduna kese moo tax ñemewuñoo wax dëgg ñooñu xalaat ngeen ñu dem ci kanamu yàlla du am luñ fay wax nit ñi nañuy jëfandikoo seeni xel di xalaat fii lu fi nekk du diine yàgg nañ koo wax lu fi nekk du diine ñun wax nañ loolu ci vidéo yi depuis 2017 suñu wax kilifa diine may leen ay kilifa aada lañ li fi nekk ay mbiru aada la sama maa fi nekkoon sama baay fi nekkoon man maa fi ne te li fi nekkoon yooyu yëpp. nam fi nekkee xam nañ ko loolu du islaam islaam loolu amu fi ay kilifa diine yooyu amul ci islaam diine kenn ko moom yàlla la ñi ci nekk mennum yàlla moom moo leen yilif dëgg dëggi jullit dëggi dëggi jullit du nangu ku dut yàlla di ko yilif ci diine dëggi dëggi jullit nag laa wax parce que yàlla moo wax ci alquran ku dem ci lu jox suuratu muhammad من سورة 47 ما وقف فوفنا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم يا لما مني موي كليفة نيجم مني نيويد دينك أمو نيو كليفة ndax ñom lañuy am modul mat kilifa ma yalla ñoo ñu amuñu kilifa ñi gem nek ci islam duñ nangoo am benn kilifa bu dut yàlla mi leen bind te moom leen te di leen wërsëgal te di leen rey te di leen àtte ëllëg te soo demee ci suratu zumar mi surat 39 aya 3 di ngeen fa fekk yàlla wax ne والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يا لمن جاي nga xamne dañu wéru ci kudut yalla gaay yi nga xamne dañoo jappé ay way ku dut yalla dañuy wax ne ñoom ñooñu nga xamne ca ñoom lañu ñu ñun kat ñooñu liggéey luñ leen luddul ngir ñu jegeel ñu yalla té loolu moy li fi nekk dé damay liggéey sama sëriñ ngir mu jegeel ma yalla ki dama ko gëm dama koy nangam ngir mu jegeel ma yalla yalla mëna ne ñooñu ñan la moy ñi nga xamne dañoo jappé ay way ku dut yalla ñooñu ñu jàppee ay wéeruwaay dañuy wax ne ñoom liggéey luñ ñooñu lu dul ngir ñu jegeel leen yàlla kon ñiy wax loolu yëpp yàlla nee na ñooñu dañoo jàppee ay wéeruwaay ku dul moom moo tax ma wax ne dëgg-dëgg ab jullit du nangoo am beneen kilifa ci diine ku dut yàlla kon képp ku gëm ne am nga beneen kilifa ci diine ku yàlla foofu la la yàlla boole kon loolu mu doon lu leer te dafa mat sëkk nit ñi yeewu parce que may wax ne réew mi politique bu safaanu tënk na leen gëm-gëm yu safaanu tënk na leen seeni tënk aada sax bokk na ca te loo xam tamit nit ñi war nañ ci yeewu dama koy faral di wax nit ñoo xam ne dañoo gëm ne njëriñ moom loo fekkee njëriñ loo fekkee ak ki gëm ne damaa war a liggéey pour les générations futures duñ ma sa yem peuple bu gëm ne ñoom dañoo war a liggéey pour les générations futures ak peuple boo xam ne ñoom dañoo gëm ne njëriñ loo fekkee ñaari peuple yooyu duñ ma sa yem ki nga xamne mamam mamam danam nan ko dana matem du màtte bu ci dugal sa loxo ak ki mamam di wax ne ki ne risque rien na rien duñu ma sayep ñaar yi duñu ma sayem kon amna ci lo xamne aada ji da ci am njëriñ lo fekke dana matem du màtte bu ci dugal sa loxo yi mom ay nit suñ ko gëmee jaru sax ñuy waaja dem fenn duñ dem fenn duñu dem fenn nit ki faaw mu fàtte bopam di def ngir yalla ta kuy def ngir yalla soroto sa bop nit ñi faaw ñu xam aduna lu fi nekkul risque da amut Manam teud sa néeg sax tok sab lal jàkkaarloog sab tele sax risque la ndax nit def na lolu kep deca lépp loo jàpp ne amul risque nit nekk na ci situation boobu lii lore fekk ko fa lor ko kon am na ci loo xam ne nit ñi dañ ko war a bàyyi xel xalaat yi man nag li may wax jamono bu ne li ma gën a ñor mooy nit ñi la leen tënk ci seeni xel la ne te la ko ca dugal lu ci bari gëm-gëm la te gëm-gëm yoo xam ne teguwut fenn gëm-gëm yu wérut la dañ koy tuddee islaam te dara boolewu kook islaam lu ay nit tëralal seen bopp la lu ay nit jàngaleel seen bopp la moo jur ba ci loolu bëri na nekkul ay li ñuy wax fii ay gàmmu màggal nangam nangam ba ci ay korite ak tabaski yii di sonal nit ñi yàlla jàngalewu ko fenn ay mbir la yu ñu sos ci diine bu yàgg ñun loolu wax nañ ci depuis ay at ci ginnaaw ku dem ci video yi ñuy def da ko ca fekk ay gëm-gëm la yoo xam ne ay nit a ko dugal ci diine nit ñi jàpp na ci la bokk ñu ciy sonn di ci daj coono yu ne te maanaam yàlla tegu leen ko dañuy jàpp na yàlla lañ cee te duñ ko ca am ndax santu leen ko yàlla lu mu diglewul du ca fayee te ñu ñuy tuddee ay kilifa di leen jox ay pouvoir dañoo am baatin dañoo am lii dañoo am laa man li ma gën a jaaxal loolu la yéen li yàlla digle amul ni ngeen koy defee nu ko yàlla digle amul nu ngeen koy defee nu ko yàlla digle te ñu ñuy wax naan dañoo am ay baatin dañoo am nangam ci bu yàgg ba léegi yàlla moom leeralu leen lii ne man li ma jàngale sama téere bokkut ak yéen li ngeen di jëf te yonent bi ngeen di tuddoo li ma wax ci sama téere loolu ci la daan sukkandiku di wax ci loolu la daan sukkandiku di jëf te loolu la ñuy gëmloo nit ñi gis nañu yonent bi rek toog nañoo moom ak wax na leen lii ak wax na leen laa xanaa mun leen woon waxa ah, gars yi yéen li ngeen jëf bokkut ak la ma daan jëf te yooyu daanaka ci mbir yi ngeen di pratiquer yëpp kon nit ñi nañu yeewu xam ne li fi nekk nii du dara adduna bi ay cycle la wax nañ ko depuis ci benn vidéo buñ defoon ah, biñ defoon octobre 2017 ku nem ci YouTube bi gars yi dañ ko bloqué woon ndax dafa am. Euh, benn kiiw droit d'auteur bu France Télévision mais ku dem ci Facebook bi Nihama TV di nga ko fekk mu nekk vidéo quinze ci biir vidéo bi ñu wax loolu àdduna ay cycle la mais leen ci jamono bii ñu toll dañoo toll ci benn tournant tournant boobu suñ ko réussiree suñu mbir day jag ba faw suñ ko réussirul nag xanaa ba beneen cyclaat rek kon nit ñi nañ xam lii xam fi jamono bi toll ñu fexe ubbi seeni xel rawatina ci wàllu gëm-gëm yii yu ñuy tuddee ay kilifa diineeg nangam nangam këru diine loolu du islaam wérut diine ku la ciy wax wax bu dut waxu yàlla dalay tardeel kon nit ñi nañu yeewu fexe ba détaché wu ci nit ñi rattaché wu ci yàlla ba jeex tàkk suñu ko defee seen lépp jàkk su ñu ko defee rek seen lépp jag kon loolu mooy li am solo ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp aax te di leen baalaax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal macha allah sant yàlla jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum